julit ñi li doon seen gannaay dañ ko bàyyi moo doonoon ngëm gu wér lu leen jaaxal ñuy wàcc ay kamil ci jàkk yi waaye léegi ñoom seen bopp ñi ngi réagir ni tubaab yi réagiré boo gisee réew moo xam ne lu bon am na fa wala musiba ñuy manifester yëf tubaab la wala ñu def ay motion yu kenn xamul yooyu lu muy jëriñ dañ daan dajaloo tuub sàkk sarax di wàcc ay kamil di ñaan loolu moo doonoon gànnaayu jullit